saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Modou ak dellu ci Sénégal de retour des USA Modou Lo va parachever son contrat contrat ba ko lié ak structure bi ñuy wax Luc Nicolaï Enco la bëgg a leeral ba mu leer teg ko ci temps jege na États-Unis dellu si moom le roi des arènes combat ba la bëgg mu féete boor moom Modou Lo la ko indi Sénégal mooy mu jot avance am signé contrat digganteem ak Ama Baldé leer nañ mu doog a dem feneen le journal ba xamle foofu mooy yàggatul léegi mu am sunu làmb moo xamle li ni mel ne Luc Nicolaï moomee nga ca ñaari mbër ya ci nekk renouvelé nga sa licence ama wut na licence bu bees Modou wut licence bu bees ñuy xaar le 26 juillet ba war a doxal combat ba mooy Willy Nicolai mu nga en règle mbër yaa nga en règle la des mooy roi des arènes jot avance am signé kayitam coow la jeex feneen fa coow la nekk mooy jàkkaarloo ba waroon am le 4 février moom actuel patron bu structure Luc Nicolai inko ñu gën koo xam ci Willy Nicolai xam na

président des amateurs authentiques Amadou Mbaye seeni gis-gis gute na bu dee duut janjeeko la mu xam le mooy CNG daa nar a yàq lamb ji mënoo jëloo ay dogal ba saison bi nekk ci digg bi nga bëgg a jël ay dogal problème bi lamb ji nekk rek dafa doy buñ ci naree dooli leneen mooy lamb ji daa nar a nax saay man duut janjeeko dogal boobu CNG jël ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te bilee dogal buñ ma tàggu woon duñ ko def Amadou Mbaye mooy président des amateurs authentiques ne dogal bi dara nekku ca CNG bu jëlee dogal bi ni mel day jàppale lamb ndax xoolal mbër yi liy topp ci ñoom ci ay nit buñ amee face à face boo xam ne CNG nekku fa te amul benn sanction buy topp mbër yi nu leen neex la ñuy comporté woo li ni mel képp moo tax CNG moom faas gisuma fa sama bopp du jàppale du dara moo waral Papa bu sampee écrit faaw ma fekki ko ndax foofu dinaa fa am jàppale ñenn ci promoteurs yi ba ñu xamee ne arène nationale rek moo fa sës ñu nga daw jëm Bargny les promoteurs migrent au stade loolu la journal ba xamle gannaaw ñetti journée yu ñu organisé ci arène nationale gars yi ñenn ñaa ngay daw jëm Bargny gannaaw arène nationale dafa seer moom Bargny moo gën a yomb gën a avantage ñoom promoteur yi fañ ko jàpp fu yomb la mettiwul bumbul bañee rek lambay nangu bu arène nationale bañee barñi nangu keneen ka nangoo fekki ay naataangoom mooy franc bu parcelle mbooloo depuis la gëj bile écrit moom franc keroog talaata la fekki ji waat entraînement ya ba mu yëgsee paasañ ratewu ko ndax wax na ko dëgg yedd na ko franc dañoo bëgg nga xam ne mënoo ñoo imposer voie bi ñuy suivre franc dafa war a xam ne mbër la ko moom Bombardier ma ñëpp jàpp ne mu ngi ci tànki bàyyi làmb digganteem ak Eumeu Sène 1-0 la Eumeu Sène a ko gagné kon foofee B52 revanche nga koy nga koy xaar digganteem ak Gris Bordeaux 1-0 la foofii revanche nga koy xaar B52 Bombardier ñetti revanche ngi ci kanamam mu jël Eumeu wala Tapha Tine wala Gris Bordeaux coow la jeex jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci yéene gaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha